yu amoon niki capitale sud du Sénégal. Euh, yamuñu fofu sax waye Kolda ak Kaolack itam ASP yi manifesté nañu fa agent de sécurité de proximité nak ñom mérité nañu euh, traitement bu gën buñu ñu ci ki leen jawrin buñu dénk ndaw yi mu di euh, Aliou Sow mi ñaawlu doxalin bi kilifa yi am ci dossier bile Mon mi leen li mu xamlé modi di njiitu bi président Macky dafa ñakup vision jëmele ko ci walup ndaw yi waye itam lu ñël seen ay xey Aliou Sow di sakku ñu taxawal ministère bu yaatoo yaatu bu ngank force des armées Euh, jeunesse ak service civique national Aliou Sow di euh, njiitu parti MPD liggéey àdduna ci micro day di met la nekk yaakaaru seen njaboot ñooñu boo demee jël leen ay at yu nii ñu doon yaakaar am leneen lu gën bu ñu defee lañu ñu war a def na mu na nañ koy xaaree ci ñoom ngeen di fay payoor goo xam ne nii mais tuuti na tuuti goo xam ne mënuñ cee am lenn mënuñ cee sax di yor seen bopp bëgg leen sànni xalaat leen fële ci àll ba duñ ko nangu doon na jekk tey jii lépp lu ñuy jël ci réew mi man dama doon dem sax ba naan dañu war dem ba taxawal ministère boo xam ne dañu wàllu kaaraange gi ak euh, takk der yi ak xale yi ba nga xam ne dañuy waajal xale yi foofu ba ku ci jëw dugg aussi lu ñu gisati loo xam ne ngëneel ci wàllu xëy ngont ñu jiital ñi nga xam ne nangu nañ def loola euh, ngir askan wi ak réew mi bala ñuy jël keneen koo xam ne nii gënu leen am xam-xam gënu leen bëgg réew mi ngir euh, tëj xët bile ñu leen di fàttali rek ne juróomi fan bu weeru août bu atum 2013 ci le président Macky Sall créé woon euh, agence euh, d'assistance à la sécurité de proximité bi agence boobule nag mission bi mu amoon moo di ñu liggéey ak autorité policier ak force de l'ordre yi ñu ngir ñu taxawal ab politique sécuritaire de proximité bu mucc ayib lëkkaloo ceeg nguur gi collectivité locale yeeg ñi acteur de la vie sociale yi mu naka noonee président Macky Sall porox ndool ci itam ngir régler problème mu xëy à mon futur ci Sénégal ay junni junni ndaw bëggoon xëy statut euh, d'engagé civique volontaire au ASPI yi moom moo leen di distinguer ak bénévolat ak euh, salarié yi euh, di met Ndaw sa jàngat ci li xew ci tay bi parce que li faral di daan gis mooy collaboration bu rafet bu dox ci diggante homme de ak ñi nga xam ne rek ñooy ASP yi maintenant nag su fekkente ne tey gis nañu ñoom ñu génn ci mbedd mi mhm. policiers yooyu ñu doon collaborer ci commissariat yi ak ci yeneen bërëbu liggéeykaay ñu gis leen euh, ci benn posture boo xamante ne nii rafetul euh, ba ñu wax ni sax ni am na benn ASP bu ci am ay gaañu gaañu dañuy def rek lu dul di ko déplorer mais encore une fois peut-être xadi tey euh, delluwaat si rek ci le président Macky dafa defoon ay digge yu bëri ci wàllu utum xëyu ndaw ñi c'est vrai que am na lu mu ci def def na aussi ay déclaration joxe ay chiffres un million mais suñ ko doon évaluer tey est-ce que loolu réalité la ci terrain bi mhm. tey boo xoolee dafa mel ni président Macky li mu créé ci ay emploi euh, précaire moo gën a fës ci li créer ci ay emploi durable parce que tamit c'est pas intéressant aussi de créer des emplois yo xamanteni ni da ngay liggéey pour 4 ans 5 ans diko ñak ñàkk du utum xey mhm. loolu war nañ ci réfléchir ut ay solution parce que tamit neexul nit ki nga liggéey ak mom pendant 4 ans mu jeex wax nañu mhm. ci kàddu Birame fay président Macky Sall yokalat len 4 ans encore, 8 ans. Sen statut, lañ ci wax, lañ ci bind, ñom gis nañ ko, dégg nañ ko, amuñu droit di manifester. Wante aussi nak xol aussi du homme bañ koy bëss parce que c'est des pères de famille. 50 000, 60 000 francs lañu wax lañ leen di jox, matu leen dara. Donc tay ñom gis nañu ni xeyna effort yi ñuy def pour bëgg servir sen réew mo leen gëna sax efforts solo servir les gens. parce que xadi 50 000 bo ci génné sa passe, lan mo ci dess. Donc ñi ci nation bi lañu bok, ci njabotu président Macky Sall mi lif réew mi ci lañ bok. Donc nañu trouver ay solution stratégie te comme que nak ñom talal lañ leen loxo aussi privilégier le dialogue nañu déglu autorité yi euh, te bañ a génn aussi tamit euh, di manifester parce que wax deug yalla euh, manifester bi jurul dara. Mhm. Mansour nan nga gissé doxalino directeur agence bi ak menace wala sanction yi mu brandir. dañ ko wax lo rek mu wax. Mhm. waye xam nañ loolu mënul jàll dëkk bi kenn mënut menacer kenn wala ngeen noggatu kenn. bu ñu seetee limu yu ñu recruté woon ak nombre bi bàyyi. Mhm. mu xam ne ña fa des amul pexé ku ci am pexé dem. xar yi gis nga euh, euh, précarité bi nga xam ne moom la ñu bëgg a wut benn corps jagleel leen ko ni yéen yéen la ñuy becc seen salaire ci mbedd mi yéen yéen la ñu doya dal yéen yéen la ñuy jox salaire bu ñàkk fayda yéen euh, yéen amul benn tâche boo xam ni c'est bien bien déterminé tey ñu ngi ci jaayum ticket tey ñu ngi ci buntu préfecture yi tey ñu ngi ci buntu commissariat yi tey ñu ngi ci buntu buntu brigade yi c'est-à-dire dañu bëgg a xam ñoom lan la créer agence de sécurité de proximité lan mooy liggéeyam carrément aw askan nag mënoo leen di di créer comme ni ko Ndeye Dimi waxee sànq ay liggéey yoo xam ne précarité rek la àndal moom la nguur gi créer loolu nag moo war a dakk ci Sénégal ñëpp a dénoncer a situation ASP yi ci Sénégal te dañuy continuer di ko dénoncé parce que xam nañu ni ñom dañ ko maîtriser sax d'ailleurs dañu maîtriser sax li ñu créer c'est-à-dire que boo tax booy taxawal leuf ci am réew dañ koy maîtriser xamni fii lii ma bëgg a taxawal fii laa ko jëmee. Mhm. mais tey ñoom li Birame fay li mu wax en tant que directeur général ak respect bi ñu am ci moom. mais xam na ni moom ci boppam bu taxawee ci palaasu ASP yi jël discours boobu ëlbati ko ci boppam dina xe boppam lool te dina mhm. tuuti lool. Euh, bi ci gën a méttiwaat mooy lu doy waar ci diggante ay jeunes ASP yi ci commissariat yi la ñuy servir. ñu génn def manifestation nga ni police yéen ñu doon ànd ak ASP yi. Mhm. di garde de sécurité di nekk ci circulation bi dem leen attaquer seen ay nattangoo te ñoom ñëpp ñu nekk ay jeune lu grave laa lay wax loolu yaa ngi yaa ngi indi jaxasoo ci ay ndaw. Mhm. ñoom ñëpp ay ndaw lañ ñoom ñëpp def armée pratiquement ñu former leen. Mhm. xëy na ñii am nañu sañ-sañu taal jeune ñii amuñu sañ-sañ bi mais bu leen leen fengale ci mbedd defoon nañu ko fi ak invalide yi. ñu dóor leen ay lacrymogène xeetu doxalin yooyu moo war a dakk ci Sénégal affaire bi yépp ak lacrymogène di ko régler waxtaan indi solution moo koy régler te situation bi dañ ko xeeb nii mais lu graaw la parce que ay junniy junniy ndaw lañ nga recruter leen xam amuñu ëllëg ju leer ñu manifester nga dóor leen ay lacrymogène xamuñu fu mu jëm de. Mhm. Abdoulaye ASP yi itam ndax ñoom li ñu bëgg mën na nekk ndax euh, jotul woon rek ñu toog xaar di li leen président Macky Sall diggoon ne dina leen defal ab euh, corps spécial euh, ndax ñoom bi ñuy engagé wu xamoon nañu lan la ñuy def itam xamoon nañu ni ay volontaire la ñu woon ba ñenn ci ñoom sax dañu ci jàppoon waaye di utaale beneen liggéey à côté. effectivement defe naa ne bu ñu delloo si li nga xam ne moo di discours président Macky Sall ba woon ba mu doon annoncé de sécurité mhm. li nga ma euh, euh, jëm si ci agence googee ak ña fa war a liggéey def naa ni lépp leer na mhm. euh, si wàllu woowu nag damay jàpp ni effectivement ku fa dugg effectivement di nga xam lan moo la fa dugal ak si ban anam nga fa war a duggee mhm. duñu tollee jamono joo xam ne ñi xam effectivement emploi la boo xam ne c'est c'est c'est c'est une durée dans le temps c'est inscrit dans le temps dafa am foo xam ne fa lay am fa lay àpp fa lay yem fa la fa la app gi fa la app gi toll mhm. may jàpp ni ku si ku si dugg rek da nga ko xam waaye xam nga dinañu dugg ba benn jamono effectivement nit ki xol ni effectivement la la la solution à la problématique de l'emploi warul nek conjoncturel dafa wara nek structurel structurel nak moy li nga xamné effectivement dañuy japp ni du am le euh, président nak bu défé agent de sécurité ay jamono ñu naan ah loolu dina baax parce que limi muy ci si li nga xamné modi insécurité bi dina bari té dina yaatu def na ni nag walu wàllu woowu war nañu xool ñi nga xamné euh dégg maam dañoo am fuñu jaar am expérience li nga xamné modi terrain euh, parce que sol nañu li nga xamné modi drapeau nekkoon nañu sous les drapeaux maanaam nekkoon nañu si armée gi nekkoon nañu si gendarmerie gi nekkoon nañu si beneen corps boo xam ne laal na lépp li nga xam ne kaarange doomu aadama la undu defe naa ne nag euh, président war na jël solution urgente mhm. par rapport ak euh, lii nga xam ne moo di situation ASP yi parce que itam yàgg nañ leen jokkoor bi di leen euh, dut baaraam par rapport ak si comportement ñenn ñi sur le terrain mhm. te damay jàpp ni effectivement sous salaire bu ñuy am mooy mën li nga xam ne à la corruption maanaam guerre maanaam di nangu ñu lay jox xaalis yi waaye du du salaire Abdoulaye Abdoulaye Mbow ndax ñoom euh, euh, bénévolat la ñu def. waaw effectivement waaw dama ne su ma ko waxee mooy am na loo xam ne dañ koy percevoir looy jot rek defe naa ni mun nga ko woy pecule mun nga ko woy salaire mun nga ko woy mais la jot la weer bu dee defe naa ni nag si wàllu woowu nag mhm. euh, ay jeunes bu ñuy engagé wu xam ne dañuy def volontariat defe naa ni mhm. dina toll jamono joo xam ne nag war nañu xool naka lañ koy naka lañ koy structuré ba nga xam ne effectivement la ñuy liggéey dinañ ko war a mën a wéyal ba keroog ñuy am fu ñu yem waaye tamit ñoom xamnañu ni effectivement ba duggal dugal lan ma leen fa duggal hmm. té directeur bi tam limu wax def naa ni euh, yëm na ci li nga xamné ne règlement bi buñu teunkoo parce que sank la doon jangat li nga xamné ne règlement bi teunk li nga xamné ne agent de sécurité yi te defe naa ni lañ ci bind leer na Abdoulaye ñu wax ci li nekk ci lamine yëpp bi batay tey ñëpp di ko mu di Bomba Fall mi ñu falaat mu nekk maire bu euh, Médina njiitu réew bi dal di koy tab mu nekk ministre conseiller nomination bi leen nak wa coalition gëm sa bop ñom lañ ko dippé moo di euh, trahi trahison ñoom seen mandataire national bi la mu daal di euh, xamle moo di kon euh, ñoom waa koalition euh, gëm sa bopp ba tey ñu ngi ci kujjeg longu politique gi ñu ngi ci opposition bi ñu déglu ko ànd boobu nga xam ne ànd nañ ko ak moom ñu sanctionné ko positivement moom mooy liste bi jàll waaye bu ñu demee ba diggante bi nga xam ne toogaguñ sax ak moom ñu xëy dégg ne Bamba Fall dem na wuy ji Macky Sall fal na ko dama ne loolu jaaxle la ba pare rus la waxaatul ak ñun toogaatul ak kii parce que am na ay organes yoo xam ne ñu ngi ci biir gëm sa bopp mais moom toogagóoragóor ak kilifa yooy pour ñu seet saytu donc loolu dama ne war lay doon bés bu nekk ñi teg ay coup loolu day na pour wane ne ñun ñu ngi ci opposition bi ci duñ ci jóge ci toppee ay responsable tey Bamba la waaye du tey Bougane